dana yóbbaale ñëpp di fàttaliku suñu way suñu moom yàlla dogal na bis bii bisam la woon bu mu daa def tey ma nga ci dëkk bi ñun ñi fi desandeeku ñu fàttali lool lépp lu ñu fi wàcce ci alxuraan te di ko fi jàng ci kaamil yàlla ko ñëw ba fekk ci àjjana sa doom am nañu yaakaar dana ko fa fekk ndax moom ba fa tëdd liggéey na te ñii mu fi bàyyi itam wax dëgg yàlla am sa njaboot yar ko fan ko war a yar jàngal ko alxuraan lii rek ngay séentu ci moom boo ko wanee ginnaaw ñu ko gën a fàttali te dala mu lay fàttali ci ñëpp doon ci lu baax kon nag lépp liñ ci jàng ci alxuraan ak ay xasida yàlla na ko suñu borom def ak yiw fexe ko ci àjjana fendaasi moom day jàmbaar la woon as góor la woon ak jullit la woon it ak jaamukatu yàlla la woon nit ku baax la ku tabe la woon ku mënoon ay dëkkandoon ñun xam naa ni ba ñuy toxu si daaru mi nam fa lañu fay waaye dem nañ ba mujjantal bi dafa mel ne moom ko ji ci dëkkin wu rafet ak jàppee nu ñu jàppoon am na benn jour ma koy fàttali di wax ni mu musaane génn ci buntu këram boobu tegu seesam boobu ñun ñi ñu doon ko ne ku ci gën a tuuti boo génnee boo fekkee ci kaw sees bi li muy njëkk a def day summi mbaxanam bi wàcc sees bi toog ci suuf loolu ak taalibe doy na ci seen waaye nag dog saawam bii mu fi bàyyi loolee nga xam ne moom la sëñ bi doon doxe yàlla suturaal bu mu wàcc yoon ñu jëw pusa bi itam mu réer te noo ngi koy ñaanal yàlla bu pusa bi mu sa réer ko doxinam rafet na lool li may wax ni ku xamoon sëñ Moodu boo dee tëll jàkkaarloo jëmm ji di nga ni sëñ Moodu dem sëñ Moodu ñu ngi toog ndax melokaan yi bi moom waaye biir gi itam bi moom yar ba ca ba nekkoon ca baayam mi ngi ci moom teggin ya nekkoon ci baayam it mi ngi ci moom jamono nag toll nañ foo xamante si bii lépp looy wax ci doomu dañuy jàpp ni la ngeen lu waaye ñun dañoo doon lépp lu ñuy wax ci doomu aadama bu dul dëgg ñu préféré pour moom waaye daru mi nag dee ñu dëkkoon léegi yaakaar naa seere sa benn am na sama rakk bi ma àndaloon léegi mu ñëw si sëñ Jiili Mbàkke waaye dafa mel daan yitte ji ko dab mu jug dem waaye bi ñu toogee bu gàtt rek ci loolu lañ doon wax sëñ Moustapha mi nga nga xam rek amul soppe kon nag ñaan suñu borom gën koo sàmm te sàmmal ko njabootu sëñ Moodu bii nga xam la àndal suñu borom seenu fan wéral seeni cër te dolli seeni xéewal ba lépp lu sëriñ bi woote yàlla may leen xel yàlla may leen xéewal bu ngeen ko mën a wulsee moom dama koy wax ni ko jamono jii ku xel indiwul ci moom aw xel dina la indi ci moom ndax tey mënoon na ñoom mel leneen waaye nag sant yàlla bu baax ndax moom mii di jëwriñ ONG 3D fa la nekk te kilifa la Cheikh Bamba Tine bi ab la ay clinique boppam la ñu taxaa fay ñu la da loolu ñu dox ci wàllu la moom la président di yabal moo koy doxi France ak feneen feneen sëñ Mor Diop ma ne am na usine bu ñëw Africa la nekk bokk ci kilifa yi di ko doxal sëñ Ba ma moom entrepreneuriat la def dana xam na ko ñaari ak ci moom société boppam la indaa la nekkoon génn benn société boppam kon defe naa ay kilifa lañ ci réew ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mën a waaye ñii dañ ci tànn ndax ñooy jëwriñu kër gi te mbir mu ne mënoo jëlandoo ñëpp dangay tànn jëwriñ ñi rek ndax jëwriñ ñi ñoo ci am solo ñii daa àndal guddi ak bëccëg bi liggéeyal seen tubaab waaye maa ngi seedeel ñëpp ne amul sama benn benn benn soxla bu ñuy yëg ci liggéeyal seen tubaab loo xam ne dina fanaan amul amul dara lu loo xam ne dina lépp loo xam ne la war nañ kër sëriñ bi bu ma ko waxee lépp dañ ci daal di taxaw li na leen bi de war nañ koo defal yaakaar naa audio bi laa ko avant 21 heures ku ci ne woo ne ba ne ma ci yaakaar ma soso ma ne nañ ko nañ ko seq ñëpp rek ko ne mos ci barkeel dafa nit ñi defar nañ ko ci loo xamante ni deux jours lañ ko defar barab ñaari fan ci lañ ko defar giri yi nga xam ne moo xaw a def une euh, semaine day jëm ñaari fan lañ ko nga xam dañuy xëy si suur moom xëy si mu jeex ak yéen ak yéen ak yéen ñu bëri tey bu nee ba toog ci kanamu sëriñ bi awaana mu am lu ñuy jàppee ñoom ñoo ne ci ginnaaw ñoom ñoo ne ci ginnaaw di dajale seen alal ak seen mën-mën ak seen xam-xam mën na ko ñoom suñu laaj fay ñi def waaw suñu laaj fay moom day miraas boppam waxtu wu ne day miraas bu liggéey ci bi sëñ bi di dalalee daf digg daara ji ma toog moo waa daara jëpp di bi de taxaw dem war a bi rek waaye rus na maa wàññeeku dafa taxaw ba nga may ma ndigal ma door a dem defe waaw moom keroog loolu la jaante man moo ko sëñ Cheikh Tine nii te moom def na vingt cinq ans ci daara ji ñaar fukki at di juróom ñaar def na ko ci loxo sëñ bi ndax ñi daara tànnal ko def ko jël sëñ Cheikh mii ma ngi ñeent fukki at ak juróom kon ñoom liggéey suñ ko noonu la kon maa ngi leen di baax taxawaay bi ngeen am nag yëg naa ko bu baax te gis naa di paaka na ko daas mooy a soññee Poutine daan na wax ne nit ki nga xam ne yàlla moo la boole ak moom ngeen jëm ci yàlla mu ne loo loo ko soññ rek xem ndax li koy bëggal mooy wër am na sëñ Saliou Mbacke daan wax ne liggéey sëñ Tuubaa duma ci yërëm kenn ndax nee na pay gaay tax te ñii bi ñuy tàmbali liggéey bii booba ña ngi université di jàng ñu koy tàmbali ña ngi université ñëw ci sëñ Modou am na si ñu ma waxal seen bopp sax ne ma bu ñu daan dem ci am na ko ne ma man di sëñ Modou boo ma daan wax paas am na ko am na ko ma ci wax woon am na ci ku ma mos a génneel ab ticket sax wan ma ko ma jël sëñ Modou ma ko fayal <laughs> waaw waaw kon ñoom it fay maanaam déet maanaam fay nañ naar bi xoromam daal ndax yàlla xam na ne seen toogaay yi waaye sama sama soxla wala lu may liggéey Sëñ Tuubaa du taxaw waaw du taxaw loolu ma xamal ko ñëpp tey boo demee Dakar ku ci ne moom tamit xëy kër bàyyil na ma fa loo xam ne pour ma di fa féexlu pour ma ma di fa jaamu yàlla tàmbale ak sëñ Souleymane ba mee nga ne mooy jiwir mi njaarim barki démb rek maa ngi këram ndax kenn du dugg njaarim romb ndax ñëpp xam nañ taxawaay kon ñu di ko baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla may lu ñu teewe ko bëree bëree bëri mu boole woon ak moom booba mu ngi université ko indi woon yaa ngi naan ma ngara ndax boo feebaree mu faj la ba yaa ngi ne astafara yàlla boo feebar waaw waaye ku jàmbaar la waaw bu baax la ku jàmbaar la kon maa ngi sant ñëpp sant sama mbokki daara yi sant Cheikh Mamadou Mountakha bii ci sama ginnaaw man sama mbokku soxna sëñ Abibu Mbàkke ñu ngi sant sant taalibe bi yëpp sant gaaw fu mu tàmbali waaye amul fu ñëw di sant mbokk yi ak njaboot sëñ yëpp tamit di sant mbokk yi waajuru jigéen ñëw nañ kenn desul tàmbalee Bawaa ba fu ne am na koo xam ne da daan ne Italie yi sama nijaay war a ñibbi si ne ma sa bis bi kañ la baaxul ko mu daal di mu daal dem mu gàttal billet bi nga xam ne moom la ko ñu ko arrière ko ndax bu mën a fekkee kon ñoom it sant naa te mooy sama nijaay ma ab jarba ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ñëpp ñaan na fan na dugg ak wér yàgg ko teewee at yu bëree bëri ni sëñ Muntaxa di wax ne ñëpp ak soññee ko jàppee ak soññee te ko ak laxasaay te gën a góorgóorlu bu baax a baax amaana moom